Um, assalamualaikum bokku waaw asalaamaaleykum sénégalais yëpp ya. maa ngi leen di nuyu di nuyu presse bi fi teew yëpp di leen ñaan jàmm di ko ñaan ci réew mi di ñëw rek di leen wax lan moo tax tey jii ñun ñu daje fii nii ah defe naa ni kenn ku ci nekk ñi fi teew nii xam na lu tax ñu daje fii mooy ah, ji jigéen dafa néew doole fépp ci Afrique rawatina ak Sénégal ma créé lii tey jii nag pour ñu am justice jigéenu Afrique dama ni aji Sarr daf nu yëngal mais dafa fekk boobu nu mer dafa fekk boobu ñu ñuy torturer dafa fekk boobu ñu ñuy rey dafa fekk boobu ñuy violer suñuy doom dafa fekk boobu ñu ñuy takk di ñu toroxal te ñëpp xam ko ci àddina war ngépp képp Afrique dafa doy dañu bëgg justice pour suñu bopp dañu sonn ci ñu ñuy use dañu sonn ci ñun jigéenu Afrique bu ñu soxlaa di ñu utiliser dañu bëgg ñu jox ñu suñu àq ak suñu yelleef ba bu ñu amee lu ñu naqari justice taxaw ci loolu moo waral suñu teewaayu tey fii te di ko ñaan ci Afrique gépp ndax fépp la jigéen bu ñuul sonnee amuñu baat ñu bëgg nag di ko wax bépp koo xamante ne ni yaa ngi nekk ci boppu réew ci Afrique foo mën a doon ñu ngi lay ñaan bu ñu amee lu ñu naqari ñu taxawal ñu ci ñun ñooy yay yi ñun ñooy maam yi ñun ñooy tante yi ñun ñooy bàjjan yi te amuñu cër bu ñu amee lu ñu naqari dañuy dem sëngéem jooy ba suñu xol sedd tey mën naa sol nii ma soloo toog mais tey am na sama moroomu jigéen bu sëngéem di jooy tey am na moro sama moroomu jigéen bu yor bokk doomam taxaw di yalwaan tey am na sama moroomu jigéen boo xam ni tey mi ngi ci kaso bi tëdd amul baat kenn xeexalu ko. fàttali leen loolu fàttali leen loolu tey jii nii Adji Sarr dafa nekk sunu doom yaayam dee ñun ñii yaay ñu am doom yu maaseeg moom tey bu ñu dee woon lii mooy am ci sunuy doom ñun gon réew mi dañu ñu war a jox gëdd dañ ñu war a jox sunu cër dañ ñu war a jàppale jigéen bu taxawee ni la danga ma def dara yow ko góor ki setalal sa bopp pour ñu jox ñu sunu cër sonn nañu tàyyi nañu di ñaan li xew barki démb fii quatorze doomu jigéen dee ci ñi ci dee jigéen na leen jur tey ñi ngi fii di wax mais seen yaay yi seen xol yaa ngi metti bu ñuy lekk di xalaat seen i doom bu ñuy bu ñuy tëdd di xalaat seen i doom te yooyu yëpp war na am justice ñooñu dee nañu xamuñu lu xew sénégalais amul ku bëggut xam li xew ci aji saar ñëpp ñoo ko bëgg a xam pour ëllëg suñu doom yi di ñëw ñu mën a am paawa te jigéen bu amul paawa ci réew réew moomu ci dëkk dëkki lañuy dëkk dëkk naa Amérique vingt cinq ans avant ma fay dëkk dama wër monde entier xam ni réew di doxee Sénégal ni ñuy def jigéen metti na ak Afrique may ñaan nag lii li tax ñu woote ko xam naa ni ñu bari dañu yéex a ñëw mais xamoon naa bu ñu toogee ba mu yàgg heure beeg yooyu te bëgguñu fi guddee di wax ni justice rek moo ñu fi tax a taxaw pour bépp jigéen loolu rek lañ doon ñaan moo tax ñi ñëpp ñëw fii ñu ngi leen di ñaanal jàmm di di di gërëm réew mi yëpp di wax ni jàmm rek lañu bëgg ci réew mi bu ñu sañoon réew mi day meloo ndax boo génnee a fii nii Sénégal réew moo taxaw ni Sénégal ñu ne peaceful country loolu bëgguma kenn yàqu ko ñun dañu yàgg ci àll bi xëy na at yi bariwul waaye ba ñuy génn fii ay tutànk la ñu woon boo nee Sénégal rek ñu ne peaceful country kon maa ngi ñaan pisteful boobu yàlla na ko ñëpp jëriñoo te ñu jox ñu suñu cër loolu rek moo taxoon ñu ñëw fii maa ngi ñaanal ñëpp jàmm maa ngi tudd Koura Ndiaye Koura Ndiaye laa tudd en français également pour euh, qui croit. Euh, I can say English though. Can I say English? En français, toi tu peux parler français. Français. Bien sûr, nous voulons juste la. Ok. Non, non, dama dem de damay wax wolof.

adduna bi yëpp maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di sant ñëpp aussi ci seen teewaay yéen surtout journaliste yi man xaw ma su ma deen def lu rëy tey fu ba jëm parce que lii benn affaire bu ndaw la bu ñu bëgg a jàllale benn message mais gis naa ne ñëpp tey teew nañ ci ci bi te lii lañ doon xaar ci ñoom ñu ngi leen di remercier ah Koura Macky wax na ba Koura euh, Ndiaye wax na ba pare euh, moom mooy représenté groupe GSM ak groupe Support Sénégal ñu ànd ak représentant waa moom sa réew ñu nekk fi ne ñoom tamit dañuy ñëw jàpp ci combat bi gëj naa wax naam mais lu yëngu li ko yëngal moo ko ëpp doole dama di ndey di bàjjen di tante rawatina doonati maam ndax ku ma xool tey sama taxawaay di nga xam ne màgg ñëw na ñuy dund nag ci ay difficulté waxuma man sama bos parce que man sama bos defe naa du lu ñu du lu ñu mën a wax parce que jàll na ba pare mu am sama yeneen moroom yu ciy jaar mu metti lol ñi ci bir sey lañuy ñuy nekk ñi nekk ak seeni nijaay ñi nekk ak seeni mam ñi nekk ak seeni jarbaat ñu gis ne ku ci melne ne ay ñoom bintu lum ñi passé ak xalé yu ndaw yu tout tank yu jigen yi ñi ñi jël di leen tëddee di leen violer ñu ci tek suñu bët réseaux sociaux yi diko ko mais on peut rien faire amuñu fuñu dem mënuñu wax nous voulons juste la justice pour yu jigen bu Afrique wala bu boo munte nekk ci aduna parce que écrématu bi suñu borom bi def ci jigéen dafa mel ni nit ñi dañ koy faral di fàtte parce que jigéen dafa nekk magasin jigéen mooy magasin magasin bu mag bi gën a mag bi yàlla sàkk ñu denc ci secret yi gën a sori benn sëru jigéen mën naa takk téeméeri tuba yu góor kon il faut ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si kër yi ak suñuy yaay ak suñuy mag ak suñuy rag ñu jéem a ritaxal dëggante yi te ñu fexe communication am ñun yaay yi ñun doom yi ñun tante yi aussi ñu fexe suñu bopp ba ñu dimbali ñu muy état bi muy kilifa diine yi surtout maa ngi leen ciy woo ndax réew mu am diine réew moo xam ne am na état ñooñu ñoo war a njëkk a jóg pour ñun suñu doole ñu xeex ñu ko maa ngi woo adduna bi yëpp di woo chef religieux yi di woo kilifa diine yi di woo kilifa caada yi ñëpp maa ngi leen di woo pour ñu taxawal bu jigéen jooyatee mu xam ban buntu lay jaar pour ñu fawal fajal ko naqaram di ci woo nag Ndeye Saly Dieng ministre de la justice ministre de la femme de l' que moom fi waroon na fi taxaw mais ku ne xamna na ne tey la sen ndaje mu mag bi motax ñu yemale ko fi kon ma ngi kontaan ci presse bi ñu fi tew ñep mënuma lim vraiment yéen ñep tay fm wal nu mu tuddati sen TV ah ñep Rose Dakar Buzz gaay yi Sénégal 24 RDV ITV mënuma lim mënuma lim xawma lan la wara wax mais gis naa ne sama message bi jàll na tey su nekkoon ne mën a kuura rek ñoo fi taxaw barke rasulillahi message musul jàllee nii maa ngi leen di remercier di ñaan Sénégal yal na fi jàmm yàgg di ñaan nag ñi nga xam ne ñoom ñoo perte seeni i bakkan di jaal seen waajur di leen ñaanal yal na ci suñu borom teg lu ko gën te ñu moytu te ñu delloo si xol yi te ñu defaraat xol yi te ñu te ñu yaru bu ñu yaroo li ñu bëggee yëpp dinañ ko am nañu ñu bàyyi xel sonn nañu au ñoo ngi jooy te ñu ngi woo ñëpp wasalaam jërë ngeen jëf